asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokk yi maa ngi leen di nuyu waaye mën a nekk di leen nuyoo ci turu sëriñ bi am sëriñ Abbas mi nga xam ne moo di xalifatu Cheikh Ibrahim borom Daaru Muxti ñuy ñaan suñu borom mu gën ak wér bu mu a mën a taxawee liggéey bi ci kattanu suñu boroom ci ngëneelu sunu borom ci barke borom Daaru Muxti jataay bi nag boo fàttaliku wala ku fàttaliku ku nekk da nga xam ne waxtu woo xamee ne saxbaan mos naa taxaw fii la ñuy toog ci wetu sëriñ bi mu yëkkati ay kàddu yoo xam ne da koy jëmale ci bisub saxbaan bi nga xam ne moo di bisub sëriñ Touba ak borom Darou Mouhty ndax ñoo ko seq ñoom ñaar ren nag mu am neneen nu muy demee ni muy demee mooy jataay bi jataay fàttali lay doon waaye du doon jataay woote dañ koy fàttali ñëpp ñu xam ne nisfu saxbaan bi mo di bisub sëriñ Tuuba ak borom dar moti ndax dajje ban ci dajje ci ginnaw digeunte bobu nga xamne lu jege juroom ñetti at ñak nañ ko gisee ci zahir te mu nek lo xamne li lu diisab ci xol yi mbolem ñu top si ginnaw serigne touba la ak kep ko xamne ki kii borom Daaru Muxti dafa la jaboote yalla dogal bisu bobu nak ñu dajje ci mu nekkon bisu bo xamne bisu mbekté la loola moy bi ba léegi ren nak mu am geneen soppi bu ci am ndax ki nga xam ne moo fi nekkal Serigne Touba di Serigne Mountakha moom it ñu ñaanal ko yàlla sunu borom mu gën a am kattan ak wér mu gën a mën a taxaw ci liggéeyu lislaam ak ci yoonu Serigne Touba bi dafa yónnee ndaw ci sëriñ bi keroog gaaw ci guddi Serigne Cheikh moom Serigne Abdou Latif mu waxtaan ak Serigne bi ci xew-xewi jamono ji fi ñu toll ak yi nga xam ne moom lañuy ñuy séntu ci lépp lu aju ci yoonu murit ci mboolem xeeti xew-xew yi ci am ak. naka lañ koy war a tëralee ba loolu amee ñu déggoo ci na nañ ko doxalee nii loola mooy fépp fooy mën a nekk te yaakaar borom daaru moo na nga xam ne sa ndigal mooy nga defee màggalu daaru mooti fa nga nekk du moo tax ma ne du ab woote ak fàttalee la mm-hmm. ndax bis bi kenn waru koo fàtte kenn waru koo niiral mm-hmm. niñ ko war a defee mooy foo waay nekk rek yow kenn yow yéen ñaar sa këru bopp ak sa njaboot nga xam ne tey jii mooy nisfu saxbaan mooy bis bi nga xam ne mooy bisu borom Daaru Muxti nga màgg ndax màggal ci xol lay jóge fas ko ci xol yi waaye nag euh, buñ ko daan génn ci bitti loolu mooy day dellu ci waa maa bi ni'mati rabbika fahaddis moo tax li ko fas ci sa màggal ko ci sa nga di ko génnewaat ba ñëpp di ko dégg bu demee nag am ay xat-xate jafe-jafe jamono nag sëriñ bi nga xam ne moom euh, lépp ci moom la aju day xool na mu gën a rafetee na mu gën a baaxee mu jàpp ñu ñuy def ñu doxale ko noonu kon moo tax sëriñ bi jox mbooleem ñi nga xam ne ñooy njabootu borom Daaru Muxti ginnaaw bi nga xamee ne wax na ko sëriñ Bassirou Anta Niang ak sëriñ Khalil mu jotal ko mbooleem bokk yi nga xam ne ñooy kilifa yu nekk ci bokk kër yi nga xam ne mooy këri borom Daaru Muxti ak mbooleem seexi borom Daaru Muxti yi mooy ndigal di nañu ko jàppe noonu ren nis ko sax baan ni sëriñ bi bëgg ñu màggalee ko ni mooy kenn ku nekk foo nekk boo dee kenn bu ngeen dee ñaar ngeen màggale ko foofa waaye bu lu ñu woote di ko wuy si dara moo ki ndax jamono laaju ko mm. kon nag loolu itam mooy ndigal li nga xam ne e, suñ ko bëggee jëfandikoo te am am ca lan ca daan am ba ko ñëpp daan wuy si buñ ko defee dana ko amee noonu ñi ko sëriñ bëggee ñu defee ko noonu mm. képp koo xam ne kii nag dangaa jiite mbooloo ci kër borom daal moo fi sëriñ bi jox na leen ndigal e, sëriñ Cheikh Ousmane dina ko gën a leeralaat nga soññewaat sa njaboot ci anam gi nga xam ne ni la ko sëriñ bi bëggee ni la ko sëriñ bi santaane ni la sëriñ bi joxee ndigal ñu doxee ko noonee kenn ku nekk nag nga sawetu bopp nga nga nga nga yeesal ko ci sa njaboot leeral la leen ko ak doxin waaye ba nga xam ne ni ko sëriñ bi bëggee benn rëq-rëq du ci am benn gàllankoor du ci am waaye da nga xam ne màggal ga moom nañ ko war a ci xol dara du ci yées jàngum alxuraan ma jàngum ak sa biir këru bopp bi nga nga nga nga teral sa njaboot te te te Euh, ñu xam nañu ne euh, sunu borom lu mu indi lu nekk xam na lu tax mu def ko te fii nu nekk nii euh, di Daaru Muxti sëriñ bi wax na ko barki dem sëriñ Cheikh Assou Faye ci wax jum doon wax lu jëm ci wàllu jàngoro yi nekk ci biir réew mi ba nga xamee ne tawat dafay am nga xam ne dañoo taal dëkk bi Daaru Muxti taal ab dëkk toxal ko mu dem sëñ bi dem cunkoodi defe naa ne loolu moo gën a metti di toxal bi bisu euh, soppi aw dox yi sax ne toxal amu ci mm-hmm. soppi aw dox yi mm-hmm. ni da nga xam ne na lañ ko baax a defee defe naa ne loolu moo gën a woyof mm-hmm. te li ma ci gën a seetlu mooy sëriñ bi booleem mbokk yi nga xam ne ñoo sëkk kër borom daaru moom tàmbali ci sëriñ Basiru am dañam ci ginnaawam ba ak ci ka nga xam ne moom lañ ci mujjee jox kool ci ñi jiitee kër yi nga xam ne mooy këri borom daal moom yi kenn ku ci nekk soo ko ko waxee rek li nga xam ne moom lañ njëkk a wax mooy ci loolu de la gën loolu de la séntu woon mm-hmm. loolu lay wax nga xam ne kon mbir mi suñu boroom leeral na ko te itam def na ci xel yépp ne lii mooy li war a am mm-hmm. kon nag sëriñ bi ni mu ko bëggee nan ko defee noonu mooy euh, màggal euh, nisfu saxbaan ci ak wér màgg na màggal nisfu saxbaan ci niñ ko baaxoo defee ci alxuraan ak xasida ak ak salaatu ak lépp loo xam ne luy jariñ ak daw la ñu jagleel ko borom daaru Muxti jagleel ko mboolem njabootu borom daaru Muxti gëm fa nekkal ak ku aju ci moom te yàlla dogal mu muy aji daw hmm. kon nag wax ji moom gudd gàtt moo di sëriñ bi dafa wax ne màggalu daaru Muxti kenn du la ne fomm nañu bis ba defir wala ñu soppi te loolu moom mooy kenn ku nekk fa nga nekk nga defe ko fa nga ko nekk loolu mooy digal li woowul kenn jataay bi jataay yu fàttalee la fàttalee na bis ba ñëw na te mooy fukki fan ak ci weeru baraxlu yi nis bu sax war a nekk juróom-ñeenteeli fan ci weer wi nga xam ne mooy weeru avril kenn ku ne foo nekk boobaa donte yow aji woo woon ci borom Daaru Muxti waaye saalibab Sëriñ Tuubaa nga waaye ab jullit nga nga xam ne bis bi ñu jagleel borom Daaru Muxti ak Sëriñ mi ngi nii fa la fekk nga jagleen leen la nga ca ci xeet yi nga xam ne mooy luy jariñi bu boobaa eh, fu ñu mën a nekk kenn ku nekk boo ko defee rek dana mel ne eh, yaa ngi teew ci eh, wetu sëriñ bi fii ci Daaru Muxti hmm. bu dee ci biir Daaru Muxti kenn ku nekk sa këru bopp na nga na nga daan na nga daan def ba dara xewut nga nga tëju ci sa biir kër defe ko noonu loolu mooy ndigal li mm-hmm. kon nag loolu mooy li nga xam ne buñ ko sàmmoonteeg moom rek danañ ci am lañ ca bëgg moo mm-hmm. xam ne sax lu raw sax lañu ci daan am ca ba nga xamee ne kër kër ji day bari fenn fu ne nit jógee ba oto yi di kër kër yi loola kon dina ci am sax lu ko ëpp ndax jàpp nañ ne ixlaas moom dina ci am ndax loolu moom dina sell sell koo xam ne nit ka toog ca kër bégal ak njabootam génnul fenn kenn génnul dem fenn kenn xamul ne tey ji mooy ni su saban xàmmee ko ci mbedd mi wala xàmmee ko ci dëkk bi jàpp naa ne loolu ixlaas lay lay war a mën a teggi ci jëfi doomu aadama kon loolu moom euh, suñ xel mën na cee bu baax sëriñ bi xam ne ni ko sëriñ bi bëggee noonu lañ koy defee ndax amul lu weesu euh, déglu ndigal te topp ko te yaakaar naa ne réaction li ñu mën a tuddee li ñu ci dégli ci mbooleem suñu kilifa yi nga xam ne moom la ñu waxal ñoom la ñu waxal ci guddi gi bi sëriñ bi santaane ne nañ leen ko jokkal ba nag ñoom ñu ko moom door koo wax yeneen di ko dégg euh, wax dëgg yàlla lépp rafet na kàddu yi rafet na yëgg ànd bi lépp dafa noonu loo xam ne lii dafa gën a del xal ñaan yàlla sunu borom yàlla yàggal ko sunu kanam yàggal fii njabootu borom Daaru Muxti gépp te yàlla may nu lépp loo xam ne yëkkati na ko rek na mu ko bëggee ñu def ko noonu bi nga xam ne lu mu ci yëkkati ak lu muy def dafay da koy ànd ak ki fi nekkal Serigne Touba te tey nag ki fi nekkal Serigne Touba moo di Serigne Mountakha noonu nga xam ne ni la ko waxee Serigne Serigne Serigne Mountakha mu ànd koog moom nga xam ne nañu jàppee bis bii nii noona la itam la wax Serigne Abdou Samad moom Serigne moom Awa Balla lépp lu jëm ci wàllu jàkka yi jumaa ji ak ak ak yeneen jàkk yi ci biir dëkk bi na ko Serigne bi doxale ci tuubaa rek lañ ko taxawee noonu ñu doxale ko noonu ndax loolu mooy li nga xam ne mooy li war a am te euh, yaakaar naa ne Serigne Abdou Samad ak Serigne Modou ñoom ñoom ñu àndal taxaw nañ fi taxawaay boo xam ne dañ ko tëralee na mu war a doxee ñu doxale ko noonu mm-hmm. kon ñi nekk ci dëkk bi nañu xam ne yàlla baaxee na leen ñu nekk ci dëkk bi bis bi fekk leen fi muy nisfu Safar bi ñu jàppe ko noonee ñi ñëwut nag xam ne yàlla dogal na mënuñoo ñëw te ndigal moo leen teree mën a ñëw loolu leneen mënu leen tere ndax moom ulil amri moom liñ ci gëm moom mooy ki fi nekkal boroom daaru moo fi ulil li liñ ci gëm mooy ki nga xam ne moo fi nekkal Serigne Touba waaye gëmuñu beneen ulil amri ku dul ñooñu moo tax kenn mën na soppi sunu doxalin lu dul ki fi nekkal Serigne Touba ak fi nekkal borom daaru moo fi loolu rek moo mën a tax hmm. ñu soppi sunu hmm. te leneen mënut a ñu def ko kon nag ñoom ñi nga xam ne ñoom la ñu gëm ñooy sunu yaakaar ñooy sunu wéeruwaay fu ñu joxoñ rek ci loolu la ñu li ñu joxoñ nag mooy tey si tey Euh, nisfu saxbaan mm-hmm. nañ ko màggale xol nañ ko màggale sellal nañ ko màggale ci fekkeen ko defoo nekk nga def ko mu di ab fàttali ne bis bi jege si na waaye du ab woote ak yëgle ci kaw nañ ko war ñu doxale ko noonu mm-hmm. ñu ngi nuyu ñëpp di sant ñëpp di gërëm ñëpp wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa